ñu ngi leen di nuyu di leen ziar doon leen ñaan ñu ñëpp ñu àndandoo déglu kàddu yi ñuy yëkkati te buñ ci noppee ñu jéem ko yaatal dafa doon ci suñu responsabilité ñun ñëpp ñu jéem a fexe lu taxawal doomu jàngoro bii di law di coronavirus kon ci biir loolu dañuy ñaan ñu moytu di demandoo ñun ñëpp. ci bërëb yi ñuy faje te it di xamal ñëpp ci suñu responsabilité la bu ñuy dem ci dispensaire wala ci bërëbu hôpital yi ñu dem fa ci li nga xamante ne mënta ñàkk ah, ñu moytu it eh, doomu jàngoro boobu law bàyyi ko ci kenn dem ci keneen nañu moytu it Euh, bépp mbooloo nga xam ne fu muy daje wàllu ndaje réunion wala ndaje beneen bu mu mën di doon wala seeti ay nit wala leneen lu mu mën di doon li gën ci waxtu yi mooy ñu toog suñu kër yi nañu moytu donc ci biir loolu daje yu bari yi eh, ak ndaje yi nga xamante ni dañ koy def ci bari bi nga xam ne dafa tëju te mbooloo mu bari mën faa nekk. nañu ànd kon aar ñi nga xamante ni ñooy mag ñi ak gone yi ak ñi nga xamante ni ñooy jigéen ñi nga xamante ni lu mel nii bu amee eh, jàpp leen ci dana gaaw kon ñu waxaat ko bamtuwaat ko ñu moytu di dem ci seetante yu bari yi moytu di génn suñu kër yi bu fekkee ne du lu mën a ñàkk bu fekkee ne dañoo war a dem yi lu mën di doon ci ab pharmacie bu ñu fàttaliku di wax suñu digganteeg doomu aadama bu ñu rombanteel na matum meetar tam tamit nañuy raxas suñuy loxo ci saa su ne nañ koy raxas ci lu baree bari ndax loolu mooy li nga xamante ni moo ñu mën a aar ci doomu jàngoro bi nañ koy raxas ak saabu bu mënee ne bu mënee ñàkk ñu bañ a joxante loxo ci waxtu wi ñu toll ak yeneen xeetu nuyoo yi ñuy def buñ ko mënee yolomal ba ca kanam ci wàllu fóon ak yeneen ba ca kanam bu fekkente ne danga sëqët wala euh, nga tisli wala nga am yaram wuy tàng ci mel noonu euh, bu mënee ñàkk bul dem liggéey na ngeen toog seen kër te bu fekkee ne mënta ñàkk bu mënta ñàkk bu fekkee ne yu mel noonu moo am na ngeen woote fi nga xam ne mooy seen dispensaire ñoom dinañ leen wax ni ngeen war a def maanaam fay doomu jàngoro bii di coronavirus mu ngi ci suñuy loxo ñun ñëpp ñun ñi seq réew mi ci biir loolu information bu ngeen ci soxla ci wàllu feebar boobu mun ngeen a dem ci adresse bii ñu leen di jox muy kat sal stat tomb jànkat tomb kat baar coronavirus bu fekkee ne dangeen am xel ñaar ci liñ fi wax yépp ci am doomu jàngoro boobu am na tamit benn càmbar boo mën a def ci kanaal bii ñu lay jox salut tomb jànkat tomb kat tomb baar coronavirus euh, trait bu ndaw test ci biir loolu it mënees naa woote ci dara juróom-benn fukk ak benn wala nga dem fi nga xam ne mooy sa sa eh, ci wàllu bu fekkee ne mënta ñàkk ci wàllu feebar bi tamit mën ngaa woote ci dara fukk ak ñaar ci wàllu laaj boo bëgg a laaj waaw bu fekkee ne nag lu mënta ñàkk la ba nga xamee da nga cee yàkkamti lool mën ngaa woote ci téeméer ak fukk ak ñaar ñu ngi leen di jërëjëfal.